bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba alhamdulillahi allazi xalaqa samawati wal ardi wa jaala zulamat wa nuur suma allazina kafaru bi rabbihim yaadiluuna wa allazi xalaqakum min tinin suma xada ajalan wa ajulu musama andihu suma antum tamtirun wa huwa allahu fi samawati wa fil ardi yaxlumu sirrakum wa jaxrakum yaxlumu ma taksibun mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ak mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyoo nag fii ci kër Serigne Makhtar Mbacke mu Serigne Mbacke Assou ci bis bii nga xam ne tey ci la ñuy fàttaliku maam seex Anta Mbacké muy ginaaw bi nga xamee ne ku tedd gi Cheikh Ahmadul Khadim dem na ci géej gi ba ñëw bis boobu nag moom la ñuy fàttaliku tey eh, ni ko sëñ Ibrahima mi jeexal waxe léegi ak Baye Dawda Dieye ni ñu ko waxee léegi rek ci loolu rek lañuy ñuy siwaat ndax ki ñuy fàttaliku moo toll noonu mënee su koo jeexal rawatina nag muy diggante Serigne tuuba ak maam seex Anta Mbacké borom dërëm ak ngërëm. mook Serigne Touba ñu bokk Mamor Anta Sali waaye it euh, bokk gun bokk Mamor Anta waaye juróom bu baax wa soxna Anta Ndiaye Mbakke nekkoon jigéenu Mamor Anta Sali kon bokk nañ ci wàllu kër nday muy maam Anta Ndiaye waaye bokkaat nañ ci wàllu këru baay muy Mamor Anta Sali mi nga xam ne moo leen boole meññi euh, muy koo xam ne buñ koy fàttaliku ñu ngi fàttaliku tey mahram bu ñu koy fàttaliku ñu ngi fàttaliku Serigne Touba ñu ngi fàttaliku xam-xam li waral jataay bi nag mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg Seexul Xaddim tukkeem boobee mu demoon ci géej gi liggéey li woon yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam eh, ñibbiseem boobe nag tey jii moom la adduna bi yëpp nag di feetal di ko waxtaane di ko màggal ndax bu tukki amutoon màggal du am te ginnaaw bi Serigne Touba jógee ci géej gi nag ci la màggal màggal gii ñuy màggalit mooy màggal gi nga xam ne mën nañoo wax ne moo sos màggal yëpp ku tala màggal ci màggal gii nga màggalee màggal gii lañ màggal nga doog a mën a màggal su màggal gii amutoon kenn du màggal muy Daaru Salaam kon tey jii buñ ko dee fàttaliku te Serigne Touba bi mu jógee ci géej gi en 1902 ba wàcc ci pooru Ndakaaru keroog maam Cheikh Anta la bi maam Cheikh Anta ñëwee Serigne Touba wax nañ ne wax na ko ñetti yoon ne ko Cheikh mu ne ko mbakke mu ne ko seex mu ne ko Mbàkke mu ne ko seex mu ne ko Mbàkke mu ne ko waat naa wàcc naa wàccaale na ku yaakaar loolu bi sëñ tubaa jógee ci tukkib géej gi loolu maam Seex Anta la ko njëkk wax ca port Dakar keroog bi mu wàccee moom la njëkk a gis kon bi Serigne Touba eh, jógee dakaar xam ngeen ne ndar nekkoon capital bi nga xam ne fi la jóge woon bi muy dem ci tukkib géej gi ndax kenn ko nekk xam ne ndar moo nekkoon capital ndax ndar la njëkk dem fa la ko borom njëkk borom Ndar njëkk woo mu jóge fa dem Ndakaaru dem ci géej gi keroog bi mu delluwaatee Ndar xam ngeen ne ba jóge fa jaar Sanosi keroog bi mu waree koor ga ba kori wa eh, tournée wërëm boobee mu doon wër ci mag ñi keroog bi nga xamee ne nag war naa jóg ngir war a dem mu def li saqaaru boppam ci téereb suñu borom bi nga xam ne Sëñ Tuubaa dafa wax ne lu ma am alxuraanam ko may nu ma mel alxuraanam na melal lolé nak la ci nek firne moy ni mu won alquran fo ma sa fekk lo xam ab kamilu alquran lay ngab di ci jàng so ma sa fekk muy liggéey ngab ab gopam mi ngi ab téréem bolé di liggéey bolé di bay kon amna alquran fu seigne touba tegoon alquran ngir xam gum xamné lum am alquran ko may waxna naa ko léegi yaa kitaabal karimi antal habibi wa khalili wa xabla kunta tabibi téere bi yàlla bi mooy sama xarit yoon wu jëm ci yàlla wu ne soob na ma ci kon képp kuy wut yàlla te bëgg yàlla da ngay delluwaat ci alxuraan ndax alxuraan mooy téere bi yàlla bi nga xam ne képp koo xam ne nga ci rek loo bëgg suñu borom subhanahu wa defal la ko boo demee ci alxuraan alxuraan ba ci dara sëñ Tuubaa nag jëloon alxuraanam nekkoon wéttalam waaye bi mu ko defee muy wéttalam ba xam ne lu mu am moo ko amit moom daa wëlbati ku war waxaat ne képp ku bëgg jariñu képp ku bëgg dara fokk nga delluwaat ci alxuraan ndax kat ak bëggam moom sëñ Tuubaa mooy alquran bi xidmatin kitaabi wal xadis yasbutu laa bi sahabin mawrusi samam kom mooy alquran ak xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag may li am moo may li kenn amul moo ko jox lu kenn lu kenn amul moom Seexul Xadim boo de boo xoolee li wax ci akramtani ikramu man masa faxal wa kullu ma aratuhu minka an faxal ataytani ya rabbi min sikra hakim faraddu anka boo xoolee loolu mu wax ci ci wakkaana waxtu wu nekk mi ngi jàngale li ko suñu borom subhanahu wa jox te jox ko kenn te nee na li tax yàlla jox ma ko awe ko ci Moustapha sallallahu alayhi wasallam li ma ko mooy mooy ber gim beroon suñu borom boolewu ko woon dara waaye jëloon yonent bi alayhi salaatu def ko mu nekkoon royukaayam moo ko may li nga xam ne moom Serigne Touba am na ko moo tax jàmbaar ji nga xam ne keroog bi mu feeñee jamono muy maam Cheikh Anta waaye juróom joxoon ko ndigal ki mu jox boppam Serigne Touba maam Cheikh Anta soxna Anta Ndiaye ko jox ndigal mu teel a jébbalu ci sëñ Tuubaa ndax ndax waaye juróom daa teel a xam sëñ Tuubaa soxna Anta Ndiaye moom daa teel a xam sëñ bi muy xam sëñ bi boobul jébbalu xewagul xam na ne kii ñëw ëllëg mooy doon borom jamono moo tax bi maam Cheikh Anta gënee jamono mu teel ko joxoon sëriñ bi la ko waral it mooy ñaar wax naa ko léegi sëñ mu Ka wax na ko ci téeréem bi ñuy wax Ibrahima Khalilullah mooy bi maam Anta Ndiaye di wax soxna jaara béréb bi ñu nekk kenn fi nekk di an Ansali ta nun ñaar lañ te ku ne li nga bëgg mën nga ko am te doo yàqal sa morom moo bëggoon nag ñu jaayante kon jaayante lu yàgg ci yoon wi la jaayante lu yàgg ci yoon wi la ndax bépp mbir boo xamante ni nit a nga jëwut yàlla fokk nga nangoo jaayante ne kat fii fas naa fi yéene am nangam maam Anta Ndiaye wax soxna Mariama ne ko fii kat te la ay sababu soxna Anta Ndiaye ñëw soxna Jaara ñëw soxna Anta jaay la te soxna Anta Ndiaye moom kenn du ne maa sababu soxna Anta Ndiaye ñëw ci kër Maam Mor Anta Saly kenn ko wax waaye moom moo sababul maam Jaara ñëw ci kër Maam Mor Anta Saly moom it li ko andi woon kër Maam Mor Anta Saly Maam Mor soxna Anta Ndiaye ab jigéenam la woon mu nekkoon mu woo ko doon ko wàcciloo soxna li wolof di wax naan togg tuuru togg soxna sa wàccul moom wax sëriñ bi laaj ko ndax nag moom daf ko araam ñu ne ko déedéet mu may ko jox ko jox ko sëriñ bi mu wàcc ci bi kër Mamour Anta Sali mu xam ne Mamour am Sali ab sëñ daaral day jàngalal Alxuraan te mbooloo mooy ñëw ci moom liggéey bi li muy bari bari mi ngi ko dékku ci ëttu Mamour Anta Sali waaye mu dem ba am yëg-yëgum ne war naa am keneen ñëw ci biir daara jàppale ko ci liggéey bi muy soxna jaara moomu moo tax ñu jaayante ñoom ñaar mu ne ko danaa fi am ab jant soxna Anta Ndiaye soxna jaare ne ko danaa fi am asamaan mi mur jant ak weer soxna Anta lam ñaanoon am na ko muy ab jant ndax sëñ Moussa Ka moo ne ma wax la at ma Mbàkke Anta faatoo mooy magi Seex Anta borom xaayaatu keroog la Bamba doon Mbàkke Anta fi saahiri wal baatini jant sëñ Mbàkke Anta wax sëñ ne ko ñaari jant duñu mën a bokk asamaan du lënt te man Mbàkke ma soo damay suux waaye na Bamba toog ba sono mooy suñu Seex sëñ Moussa Ka it waxaat na foo xam ne sëñ Tuubaa fa wax di delloo war njukkal maam Anta Ndiaye mu ne ko maam Anta Ndiaye wàcc na am na bi yaaram am na imaam galiwul ci maaram yaa war a sant yàlla ak yoon ngir foo taxaw rango ngëneeli Bamba kon moom sëñ Tuubaa xam na lëggéey soxna Anta Ndiaye ci biir kër Mamour Ansari moo taxit Mamour Sakho loolu mu ko waxaat xam ne kon soxna Anta moom am na ngërëm waaye nag yàlla may na ko tawfeex mu am fi ku ami dërëm ami ngërëm muy maam Cheikh Anta bañ koy wax maam Cheikh Anta borom ngërëm borom dërëm booba am ngërëm yombut am dërëm yombut ba muy ami dërëm di ami ngërëm booba ku ne bëgg na ko am waaye moom la yàlla jagleel amoon ko ba muy ànd dem Màkka booba ami dërëm baaxoon na loolu waaye moom la yàlla jagleel mu ami dërëm kon kooku buñ ñu ko dee fàttaliku tey ñu ngi fàttaliku maam mahram muy koo xam ne histoire lu ko fàtte mukk ci jikkoom ak jëfam dëkk bii rek doy na sëkk ñu ne moom la Sëriñ Tuubaa njëkk sanc rafaate rek maam Cheikh Anta Gaawaan juróom ñeent fukki taalibe ak juróom ñeent la ko booleel jox ko dëkk bi rafaatale ko ko muy dëkk bi Sëriñ Tuubaa njëkk sant daru Salaam di këru mucc kon kooku li ko Sëriñ Tuubaa defal ak li defal Sëriñ Tuubaa kenn kooku am lu mel noonu amut sëñ Ibrahima wax na ko tey jii buñ dee waxtaane kenn ci mag ñi wala kenn ci waa kër Mamour Ansari da ngay jàpp ne kooku rek la sëñ Tuubaa defar waaye sëñ Tuubaa moo toll noonu ndax ku ne ak ni ku ne ak ni nga toll ci sëñ bi ak ku ne li sëñ bi def ci yow bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayyuha al ixwaan al muslimin ayyatuha al axawaatu al muslimat nuhayikum bi tahiyati al islam وهي السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi noo ngi leen di nuyu ci nuyoo bi islaam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ sëriñ Mouhamadul Muntaxa ayyadahu Allahu wa nasra di ko ñaanal yàlla yàggal liggéeyam ci Sëriñ Tuuba ba def ci lu kaw yaakaar jullit ñëpp nekk noonu ñu ko ñaanal sëñ Abou Mouhamed ak njabootu maam sant yëpp naka noonu ñu koy ñaanal mboolem ñu yor ak caabiyaati islaam yëpp yàlla yàgg leen sàmm leen yàlla barkeel leen àggal seen seeni liggéey di nuyu mbokki jullit yëpp nag mbokki taalibe yëpp mm, di fàttali rek li ñu fi li ñu fi taxateew tey muy bis bu màgg bi nga xam ne tey ñaari jàmbaar ya di seexul xadim ak rakam ci tedd ja taalibeem ba bis bu ñu dajee woon euh, sëriñ bi jóge ci liggéey bu sell bi nga xam ne tolloon na ci juróom-ñettaat yoo xam ne nii tubaab bi génn na ko dëkk bi génn na ko réew mi mu defoon li ñuy wax exil euh, nekk lu ma juróom-ñettaat yoo xam ne ni gisul mbokkam gisul taalibeem gisul doomam gisul kenn ba yàlla dogal ma am juróom-ñettaat wolu ma am seexante ca Gabon bi mu ko wooloo mu dem fekk ko fa ba mu ko fekkee am na histoire mag bu fa am wax nañ ne sëñ maam sant dafa fekk sëriñ Touba bi mu demeen moo xamal ko ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko fii de dafa neexee jaamu yàlla lool ma xeema mu toog fi des fi dafa liggéeyal sama borom loolee am na ko te maam Santa wax ba waxam joojee mooy sababu Sëriñ Tuubaa nangoo siwaat fii ci senegal moo tax ba mu ñëwoon mu jagleel ko loolu mu ko jagleel tombeeg mu laaj ko subhaanahu wa taala suñ borom ndax Sëriñ Tuubaa lu muy dafa dee teg loolu ci alxuraan mu yem ci wallaahu yahdii ilaa daaris salaam wa yahdii man yashaa ilaa siraatin bi mu agsee yàlla dogal na am na fi juróom-ñetti fan yoo xam ne fii la ko nekk ah, lépp lu ñuy xalaat ci teraanga walla loo xam ne ni tey nit mën na koo def ci kilifaam wala sangam ba xolam sedd maam Sam defoon na ko ci kanam Sëriñ Tuubaa ba wax nañ sax bokkoon na ca mu ne li des ji sama ci teraanga sama mag ju baax ji day mooy ter doomu aadama rek moo ci desoon wax nañ ne bu ko Sëriñ Tuubaa déggee nag xam fa tollu ci xaal mu xamal ko ne ko nag seex mu ne ko mbàkke mu ne ko gërëm naa la yàlla gërëm na la yonte bi gërëm na la mu ne koy riddan laa soxta maxda ngërëm léekat xamal ne mm, mm, yàlla nangu na ko te leneen du ca toppaat loo xam ne nii dana wuuteeg merom suñ borom wala leneen loolee mooy bés bi saa bu ñëwee nag ñu di ko woote fii di ko fàttali ko na ko jàmbar ju baax ji doon defe muy maam Saxante ba ci sëriñ Mouhamadul Mamoun mi nga mi ko fi mi ko fi njëkk nekkal alaaji sëriñ Tàkko ba ci njaboot gi ba fii mu egsi tey kon nag ñu ci yow mboolem jullit ñëpp di ci sàkku teewaayu ñëpp nag ñi jote ñëw ñu jote ñëw ñe ne ci yoon yëpp nag waaye muy bis boo xam ne it nañu bàyyi xel ne lislaam bu amee ndam bis bii la senegal bu ñu amee li ñuy wax indépendant bis bii la ndax Serigne Touba bu ñëwutoon defe naa ne Sénégal ni mu mel tey defe naa ne du nu mel diine ji defe naa ni doon doon na sooxe waaye kon ñibbisi ñibbisi gi nga xam ne moom Serigne Touba ñibbisi woon muy bis bii nga xam ne tey moom moom la ko maam sant doon ganale yaakaar naa ne tey lépp na am ci islam ci senegal lépp na am ci jàmm bis bii moo ko waral kon nag du bisu maam sant rek waaye bisu jullit ñëpp la bisu njaboot Sëñ Tuubaa gépp la bisu islam bépp la yàlla dogal ne nii ñu koy màggale fii ña ngi koy defe noonu ci Amérique ci France ci Italie ci Espagne mboolem goxi àdduna bépp foo dem tey ñu ngi ko fay màggal loolee nag Sëñ Tuubaa moo ne toll kon nag ñu ngi ci woo mboolem mbokki jullit ñëpp di ci sant ñëpp di ci gërëm ñëpp yéen presse bi ñu ngi leen sant leen gërëm seen taxawaay rafet na mat na ndax bi bi ñuy waaj bis ba léegi eh, mbooleem mm, seen nattu yëpp ñu ngi fi ñëw di teew di taatan si eh, ak di jël avant première yi ba tey jii loole nag muy loo xam ne nii tey bari nañuy jarañ ci bi te ginnaaw yàlla ci seen lox yi lay jaar ndax eh, presse dafay loo xam dana yaatal lu baree bari dana feeñal dëgg gu baree baree bari dana dimbali ñi nga xam ne ni tey dañoo sori te information yi rek fii lañ mën a jaar ba jot ko loolu yi def naa liggéey bu am solo ngeen ci am kon noo ngi leen sant bu baax a baax di sant mbokk yëpp nag ndax démb ba léegi mbokk yu bari teew nañu fi biig ba deux heures de matin mbokk yaa ngi fi teew ndax kilifa yu bari dafay xaw a xat si ñoom ci bis bi moo tax bu ñu nee ëllëg si lañ fiy teew si loolu it ñu ngi leen sant mbokk yëpp di sant mbokki jullit yëpp di sant mbokki taalibe yëpp xam naa bëgg nañ cee def waxtaan wu gën a yaatu ci kanam eh, tombeek eh, xañ na lenn ci waa presse bépp gën fay daje ñu gën koo yaatal waaye ñu ne woon nañ ci sànni kàddu rek muy kàddu ubbi ak kàddu nuyoo ak kàddu tent ak kàddu soññee la des nag kon ñu bàyyi kook yéen ba ci kanam rek incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu